bàyyiwuma sama wàll rek laay défendre kon Sonko daal ku ko gis-gis nga doomee xaram moom laa wax doomee xaram ju bon a bon a bon joo xam ne rey moo dagan ci moom waaye bàyyi ko muy saaga mag ñi di continuer ba pare it ngeen laaj ko xaalis bi mu yor fu mu ko jële Sénégal loi bi moo tere ñuy fabub xaalis di la may nee na dañ koy mayub xaalis mu koy jël ñi koy may ñan lañu loolu président Macky Sall maa ngi ko koy laaj ma moom kan moo koy financé Sonko dafa yàpp sénégalais yi